Ah, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lërëg écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar ah, kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróom-ñeenti waxtu ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Euh, li ci gën a fës bokk na ci chef opposition bu réew Mali Soumaïla Cissé ak euh, keneen ka ñu tegande woon loxo doomu France boobu di Sophie Petronin ñoom nag daan nañ leen rek libéré bésuk tey jilee ba sax euh, daal dinañ rek jël seen i daamar wut si capital ba di Bamako dinañ ci daal di nag dikk si gannaaw ba nga xamee ne coow lu yàgg la wonte daal di lëmbee réewum rek Mali ba ci sax daanu ki nga xam ne mooy Ibrahim Boubacar keta Eh, dinañ ci daal di dikk ci kanam tuuti lay doon dinañu desandi ak eh, coowal eh, ñaar téeméer ci ay millions yi aju ci ñu daal di jagleel ay ticket restaurant ci IPRES waa CSA di daal di ñaalu li ni mel secrétaire général confédération syndicale autonome di sàkku ci njiitu réew mi dem daal di yeesal nag conseil d' administration bu IPRES googu waaye itam ñu daal di fexe saytu njeextalu mandat ñetti at bi nga xam ne nag daal nañuy yegg ci cappaandaw ga dinañ ci daal di nag euh, dikk euh, député yi ñu daal di nag euh, yóbbu école bonne gouvernance doxalin rek bu mucc ay fexe itam po wàllu suuf si ñu daal di koy nag aar centre excellence ak gouvernance foncière bu Afrique sow jant daal di ci wooteem ndaje ca Mbour la ñu daal di nag bëgg mooy ñu daal di saafara coow yi aji ci wàllu suuf rawatina li am am fii ci Sénégal yitteel na leen lool dinañ ci daal di jokkoo jeeg Moustapha Sall ci biir xibaar yi lay doon dinañ ci toftal yeneen xibaar jotaay woon bokkoon na ci rek lu aju ci wàllu euh, ndox yu bari ak plan décennal boobu ñu daal di teg te ministre intérieur doon ci jàkkaarloo ak euh, ñii di nag euh, waa pencum ndaw réew mi bokk na ci itam mbirum terme sud ak proposition solution yi nga xam ne njiitu réew mi daal dina ko ci rek def muy ci des mooy coowal politique gi aju diggante Sonko Mansour fay askan wi ak ñi gëstu ci wàllu politique jàpp ne du lu amal mbir mi njëriñ daal askan wi li gën mooy waxtaane wala penc ci wàllu koom-koom gi ak yenn ci xeetu nag ëllëgu ndaw ñi dinañ ci jukki ci njeextalal xabaar yi lay doon Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi neskis lay doon. Adama ci kàddu gi niñ leen ko waxee ci bopp nag euh, xibaar yi ñaari otage ñi ñu daal di nag euh, téye woon kon euh, kii di doomu France di Sophie Petroni ak kii nga xam ne nag mooy njiitu opposition bu réew Mali la Cissé ñoom nag daal nañ leen libéré bàyyi nañ leen bésu ko alxames tey jile boobu nag libération <laughs> weccente la ak nag gannaaw ba ñu bàyyi itam lu war a toll nag ci ay fukki fukki jihadiste yi nga xam ne autorité bu réew Mali ñoom it daal nañ leen rek euh, bàyyi otage bu mujj boobu doomu nag euh, France bi euh, daanaka moom la ñu bàyyandoo ak njiital opposition bu réew Mali nañ leen ko daal di rek waxee ba jamono ji daal ñu jàpp ne ci loxoy jihadiste yi la ñu daal di nag nekkoon présidence bu réew Mali ci boppam ci réseau sociaux bi daal di nag dëggal libération boobu ci la daal di nag xam ne ne moom Soumaïla Cissé ak kii di madame Sophie Petronin Eh, ñoom nag nekkoon ay otage eh, jihadiste yi daal nañ leen bàyyi ba jamono ji sax daal nañu rek dem foofa ca eh, Bamako ci la ñuy daal di nag desandi foofa ca réewum nag Mali gannaaw ba nga xamee ne ambassadeur bu Sénégal ca Mali son excellence ba Mbagnick Diagne moom nag seeti na ki nga xam ne nag mooy ka yore pouvoir transition bi di son excellence ndaw ñu daal di waxtaan nag ci wàllu diplomatie félicité félicité arrestation yi nga xam ne njiitu réew mi yeggee na ko ko waaye itam ci occasion boobu ñu daal di àddu euh, jëme ci euh, relation yu tar yi nga xam ne diggante réew yi daal di nañ koy rek am euh, gannaaw gi wax nañ coopération bi ci wàllu koom-koom ak wàllu commerce ñaari réew yi nañ ko daal di nag duggante ak nañuy daal di fexe ba mbir moomee ñu daal di koy rek aar ambassadeur Diagne bu Sénégal ci réewum Mali daanaka nag wax na ci wàllu nag politique bi diggante ñaari réew mi ak doxalin ba ca daal di war looloo tax ñu jàpp ne eh, yaakaar daal am na ci eh, coopération boobu di am eh, diggante ñaari réew yooyu te mu daal di nag tegu ci wàllu suqaliku ñu daal di nag wëkk yéen ci xibaar yi ak coow li aju ci wàllu ñaari téeméeri millions yooyu ci wàllu ticket restaurant ca IPRES xeetu nag ba lañ ko daal di jàppee CSA di daal di àddu ci mbir mi ñaawlu na ko waaye itam jàpp na nag faw état bi daal di nag yeesal conseil d'administration ba ak mandat bi nga xam ne bu ñetti at daal dinay rek faaw ñu daal di koy euh, yeesal wax nañu jëmee itam ci li ñu war a rek euh, xoolaat banxaasu caisse sécurité sociale secrétaire général bu confédération syndicale autonome euh, bu Sénégal di Abdou Fati wax ne daal yorin wi moo daal di amee jafe-jafe ñu déglu ko ci jokkoom ak Birama Ndiaye. Ah, li xaw caisse IPRES vraiment métti ñëpp ñu koy méttitlu mais warul bett kenn parce que lu toll ni IPRES war a ay instance am depuis maintenant ñetti at kenn renouvelé wu ko caisse de sécurité sociale même chose mais nguur gi ba mu bëggee renouveler conseil économique et social daf ko def ñun nag vraiment liggéeykat yi jàpp ne nañu war nañu renouveler caisse de sécurité sociale war nañu renouveler IPRES parce que suñ ko renouveler wul nit ñi dañ fay daagu te suñu daagoo rek def lu leen neex tey loo fa am mooy nit ñi sont dans la routine routine fu mu am laxisme fay am su laxisme amee coow bi am tey IPRES ma si ay ticket de restaurant mais au détriment ay pauvres travailleurs yoo xam ne seen pension matul ñu war ko améliorer war yaxanal li fa ne defuñu ko ñu fay détourner lépp nag suñuy responsabilité ñun sax syndicats yi bokk nañ si parce que ñun comme ni ma koy defee tey dañ ko war dénoncer nguur gi jël ay responsabilité samba si jël ay responsabilité renouveler caisse yi renouveler IPRES renouveler caisse de sécurité sociale ndax mu souffler su souffler am ay gisin jariñ sunu askan jariñ travailleurs yi Euh, ci la ñuy daal di nag tàbbi ci beneen coow mooy wàllu nag euh, suuf ñii di député yeeg élu locaux yi euh, ñi leen ciy daal nag tàggat nañuy fexe ba kaaraange daal di am ci wàllu suuf si fii ci senegal centre excellence ak gouvernance foncière bu Afrique sow jant ak francophone daal di ci amala ab ndaje ngir gunge rek réew yi ñu mën teg ay politique yoo xam ne ci wàllu yorinu suuf ci l'Afrique day mucc ay kaayu senegal nga xam ne bari na lool coow ci wàllu suuf yitteel na réseau boobule ba sax daal di ñax ña fa teewee rawatina expertise bi nga xam ne réew l'Afrique amee na ko ñu daal leen ci rek tàgg bu ko defee acteurs yeeg décideurs yi ñu mën di ci sukkandiku lañ ca namm gunge réewam rek Sénégal ci doxalin bi nga xam ne nag ñëpp ci daal di nag gis seen bopp ci wàllu suuf ndaje bi ñu ngi ko amalee foofu ca diwaanu mbuur Moustapha Sall. gunge nguur yi nekk ci dëndu Afrique ngir ñu daal di tàqalikook coowal suuf kuréel yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum suuf Sénégal bu baax a baax. ci niñ fi yoree suuf ndaxte dañ cee nemmeeku ay jafe-jafe ay coow yu bare bari yi bu ñu sukkandikoo ci professeur Ibrahima Diallo nga xamante ne moom moo jiitee réseau d'excellence sur la gouvernance foncière di ak kuréel gi nga xamante ne daanaka dafa wasaaroo ci déndu Afrique. état yi ñoo dajee au niveau de l'Union africaine pour constater bu nu réglé wul problème suuf si développement Afrique dafay gën a métti. ni la tey boo déggee Dodel nga dégg Fane nga dégg Mbane nga dégg Dengler nga dégg littoral nga dégg côté Mamel. ñee ngeen nga xam ni donc aujourd'hui Richard Toll et cetera. donc nga xam ni tey donc problème suuf problème bi nga xam ni. daf ngi. tollu si affaire problème suuf nga xam ne tey Sénégal daf ko war a jël au sérieux pour ñun amul lu gën a am solo problème yooyu lëkkaloo ak assemblée nationale ak élus yi pour xool ñu leen di accompagner. muy ndaje mu am solo bu ñu sukkandikoo ci ay mbiru ñëng mi nga xamee ne moom moo jiitee groupe parlementaire bi fare ci nguur gi. lii ñuy waxtaanee tey am na solo. ndax nit mënul def dara te amul xam. kon nag daje fi tey waxtaan ak borom xam-xam yi. professeur université yi nga xam ne dañuy jàng am xam-xam mu màcc ci wàllu suuf. ñu ñëw sottante yi ak ñun xalaat. ak expérience bi ñu am ñun itam. parce que comme ñun tam ay élu la am na expérience xam xew gox yi ak gox goxaat yi ñun ñëpp ñu dajale suñu xam-xam. ba bu ñu waxtaanee ànd seet li nga xamee moo baax ñu def ko ay recommandation defe naa loolu am na solo beneen bi ci des mooy assemblée nationale même bu fekkee ni projet de loi la gouvernement bi adopté ko en conseil des ministres ci biir loi yooyu bu ñu ci gisee loo xam ni war nañ ko joyanti am nañu possibilité def ay amandement lan mooy ñuy mën a may ñu def amandement yooyu mooy ñu am xam-xam ba li nga xamee ñoo ngi koy waxtaanee ñun ñu am ci xam-xam bu wér ba nga xamee bu ñu ko indee ñuy def amandement yi dañuy xam ni amendement yi ñuy def ah njariñu réew mi la njariñu gouvernement bi mel na njariñu askan wi la. yeneen ponk yu doon waxtaanee ci ndaje mi bokk na ci nan la ñuy def ba jigéen ñi am wàll ci suuf si ak tamit ah, nan la ñuy joxe suuf si fii ci mim réew. loola doon nañ ko waxtaanee bu baax a baax. ci ndaje mi nga xamante ne ndaw réew ma ñoo ko seqoon Moustapha Sall Mbour Sud FM. Ah, Moustapha Sall jaajëfal ko ab enveloppe bu war ci ñaari milliards ak juróom-ñetti téeméer ci ay millions suñu koppar ah, coopération réewum Corée daal di koy nag ah, tekk ngir gën dooleel rek xale yi nga xam ne dañuy daal di jàng lim gi gën rek yokku ñu gën koo xam ci taux scolarité bi ñu jàpp ne dafa daanaka néew na lool ci yenn ci ay diwaan ya nekk ca oh, Louga nee ñu nag ñeent. ñeent fukki junni ci ay xale daanaka projet boobu dina leen daal di laal dinañ ci tabax ay case tout petit waaye itam eh, dinañ fexe forme acteurs yi nga xam ne eh, faaw ñu daal di am xam-xam ga ca war ba ci sax équiper ay inspection ak ya eh, yi nekk ci barab yooyu nga xam ne projet bi teg na leen gët CRD lañ ci daal di amal ca Louga Lamine Gueye Salman réewum Corée dugal si lu toll si ñaari millions ñu tegal juróom-ñetti téeméeri junni suñu xaalis tax projet bi xam ne li ko tax a jóg moom mooy suqali njàngum tuuti tànk yi dina yëngu si ñaari diiwaan muy Louga ak Ndar li ko tax a jóg nag mooy jàppale lu toll si ñeent fukki junne yi tuuti tànk tabax ay case de tout petit tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di jàngal waaye jox jumtuwaay yu doy inspection d'académie yi ak inspection de l'enseignement et de la formation yi Thérèse Diouf Faye mooy ki si bopp kuréel gi ñu dënk lépp lu jëm si wàllu njàngum tuuti tànk yi si biir réew mi projet bi nag li ko tax a jóg mooy dinañ tabax ay casier tout petit Louga ak Dagana dinañ équiper li nga xam ne moom mooy ñetti téeméeru école yi nga xam ne moom la ñu am ci région bi dinañ renforcer également li nga xam ne formation acteurs yi muy éducateurs yi di conseillers familial yi même parent yi loolu bu paree nag am na nu ñuy def ba gën a redynamiser l'engagement communautaire. jamono yi nga xam ni mbasum coronavirus bi mi ngi fi nag tax na projet bi di xalaat ban taxawaay la war a am ngir bu école bi ubbiwaatee Thérèse Diouf Faye. benn subvention supplémentaire ba fii may wax ak yow nga xam ne ñoom ñoo nekk ay structure de petite enfance nekk ci ñaari région yëpp wutal nañ leen lu ñuy wax dispositif de lavage des mains ay saabu yi nga xam ne moom la ñuy soxla ci at mi ak eau de javel yi ñuy soxla ci at mi ak li nga xam ne moom mooy masque yi pour jàngalekat yi loolu nag boo gisee ñu def ko parce que xam nañ ne que ci pandémie bi lañ nekk te balaa ñu cee sori war nañu mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat ñoom ñi ngan projet bi nag ñu ne li ni mel dina tax ñu saafara lim bu néew bi nga xam ne ñoom ñooy dem si école yi rawatina wàllu tuuti tànk yi si ñaari région yi nga xam ne mooy Louga ak Ndar CRD bi ñu amaloon fii si Louga nag tax na ñëpp ñuy yëngu si wàll wi weccente ay xalaat ngir xam fan la ñu jëm ki la doon jotali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM Lamine Gueye Samane boobu jamono wetu Louga Saint-Louis foofee ministre bi ñu dénk wàllu culture ak communication daal di fay am ab nemmeeku Abdoulaye jóob daal di jiite xew-xew bi nga xam ne eh, remise officielle caabi cathédrale Saint-Louis euh, ci kii di évêque bu joses bala ko dal di nag jébbal monseigneur Ernest Sambou ministre bi eh, daanaka rafetlu na bu baax a baax jëflante gi am euh, ci wàll woowu diggante Sénégal ak France Saint-Louis Yves Tendeng ci kanamu lim bu tàkku ci ay autorité ak i njiitu jàngu bi la kii di jëwriñ gi ñu dënk wàllum culture ak communication daal di jox caabi cathédrale bu ndar kii di évêque bu Joseph bi loolu lee am na ginnaaw bi ñu ndarkeppee liggéeyum yeesalum boobu lay jàngu te kii di jëwriñ bi di Abdoulaye Diop daal di ci sukkandiku ngir rafetlu relation yi am ci diggante mim réew ak réewum France. ah li ñu tasee fii xam ngeen ne am na lu may gëstu si rafetlu mooy euh, dynamisme something bu am diggante Sénégal ak euh, République française dynamisme tam bu am. Euh, te bu am diggante ñaari président yi moo tax 2013 bi président ñëwoon fi xam ngeen ne bâtiment bi boo xam ne depuis 1824 la amoon boo xam ne mu nekk ci classé ci UNESCO te liggéey loolu aju pare pour que ñu jox caabi fi diocèse bu nekk Saint-Louis tey ñu rafetlu loolu trop. bile bu Ndar daal di wone xarkanam bu yées te mucc ayib te kii di évêque bi di monseigneur Ernest sambu daal di ko rafetlu. pour moi c'est comme si on <laughs> gu rëy laa am ci bis bi mu ngi mel ni sax dañ maa yekkal plat ceebu yàpp ngir ma añee ko li ñu mën a jàpp ci mbir mi le moo di rek kenn mënul yeesal cathédrale bi ci loxo boppam ba tax na daal ñoo ngi rafetlu ñëpp ñi nga xam ne nii dugal nañ ci seen yoxo ba lu ni mel mën a antu pour que nous muy liggéey bu nga xam ne nii dañ ko daal di tëral ci lu jëm ci mbirum programme de développement touristique bu Ndar bi nga xamee ni kuréelu APIX mooy maître d'ouvrage délégué te kii di Mountaga Sy jiite ko. ñu ngi am mbégte tey euh, ñëw fii di joxe caabi cathédrale bu Saint-Louis président Macky Sall dafa amoon yéene.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 ba léegi phénomène ba fa des la ba tax yitteel na leen bu baax a baax rawatina ñoom ñi daal di takkaloo ak Guinée euh, Bissau agence nationale euh, relation ak relance bi suqalikoon activités yi jëm ci wàllu koom-koom geeg social bi ca Casamance di ànd rek bëgg ca nag dox tànku euh, jàmm ci musiba moomu di dox diggante ñii di sàmmkat yi ak ñiy ñëw ngir daal di nag sax ci seeni i jur comité départemental bu développement daal nay dajale acteurs ya nekk ca. Balantakunda ci ponk boobu ngir ñi daal di ci indi ay saafara Sédhiou Moussa Dramé. ndaje bii ñi amal ñu duppee comité départemental de développement di CDD ki ko jëmmal di kër gi di agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance ñi gën ko xam ci ANRAC loolee dafa am yokkute boo xam ne sopp na ko indi lool ci ay pexe yu ñu lal fi toll nii ngir neenal sàccum jur moo xam ne mooy lëmbee ci barab frontière ak Guinée Bissau mi nekk directeur général ANRAC. mu am benn ñuy jàppale acteurs yi ñu réaliser ko rek loolu tamit dina bokk ci li indi saafara ci mbir mi comité de veille nga xam ne dañu amoon ay jafe-jafe dinañu ñu jàppale côté frontière bi am na ay projet yoo xam ne ëmb na population euh, Sénégal ak population Guinée-Bissau ñun tamit dinañu indi jumtuwaay maanaam dinañ pour que activités yi mën a door ci commune Djibanaar askan wi ci dëkk lot nañ lool ci sàcc njur mboombe waaye kii di Ibou Diallo Sadio nekk maire ba it ma ngi dund yaakaar mën cee gi moo tax tey ñu ngi ñaan état bi ak euh, partenaires yëpp ñu jàpp si amoon na fi ay jamono ñun xamuñu woon ANRAC tey ANRAC taxaw na pour accompagner tout ce qui se passe dans la région. naatangoom bu ñaanga di Yoro Mballo moom àndu ci benn yoon ndax it nee na it yaakaar gu yàkkeeku la am ci ndaje bi lay ndax taxawaay gëdd buñ ci war a def ba léegi daf ci des. man je suis découragé état nañu góorgóorlu état nañu jël motoya mu mu sëkk pour mu aar éleveurs yi commune ñaanga dañoo sonn sonn nañu trop te doy na depuis kañ ñu ngi wax ay vol it mën nañ ci gën a dund yaakaar ndax it ANRAC moo xam ne dugal nañ ci loxam. désenclavement c'est vrai état def na lu bëri construire na ay piste mais ba tey ñaax état gën a def pour que militaires yi mën a mobiliser comité de veille am na remercier ANRAC jël engagement accompagner leen. adjoint préfet bu Goudomp di Bara Wilane moom dafa soññ mboolem ñuy yëngu ci fànn boobu la ñu fexe ba xàcc ndóodóorandoo ndax it nekk na loo xam ne dafay gën a yokk ndóol moom la ñu daal di gis mooy maire euh, bu barab boobule mooy lii di port d'arme ngànnaay di ko yore dañoo war a may ñii di euh, sàmm kat yi nekk ci commune bu ñàgg ñëpp ñu daal di koy rek am bu ko defee ñu mën a aar seeni bopp loolu daal mooy plaidoyer bi nga xam ne maire bu commune ba euh, bu penku ba nekk ca Sédhiou gis ndax razia bi am te mooy cong yu bari yu ñuy def ci eh, jur gi ba pare di ci faat ay nit mbir moomu la daal metti na ko lool loolu moom Yoro Mballo ñu déglu ko ak Moussa Dramé. état nañu jël motuwaay mu mot sëkk pour mu aar éleveurs yi. commune Nianga dañoo sonn sonn nañu trop te doy na. waxoon na eh, ministre de l' intérieur. nañu autoriser tout de suite et maintenant port d' arme éleveurs yi. éleveur bu nag ñu jox ko autorisation port d' arme. parce que ko. mu ñu toog fii du ñu dem bitim réew mi ñu toog di béy di jënd ay nag ay des vauriens ñëw jël sañ nag yóbbu ko. bu ñu riposé ñu ne waaw amoo autorisation port d' ñu mais xanaa ñun fa ñu dem te maa ngi wax état nañu considérer département de Goudomp Goudomp souvent nañu leen jël comme parent pauvre depuis kañ ñu ngi wax ay vol de bétail vol de bétail ba léegi ban solution la ñu am ban at concret état bi woonee ne ne en tout cas maa ngi góorgóorlu pour nee ne frein euh, vol de bétail am boo demee ci Kolda par exemple ci rukurukaay yëpp ci gox-goxaan yëpp dañu ay lampa lampadaire mais xanaa fii xanaa duñu sénégalais c'est regrettable xëy ñu gontuñu lii rek lañ am boo amee malade tey tout de suite tout bi amoon banque amoo compte mais da dem ci troupeau bi nga jaay ñun la non yow léegi il faut nga limiter sa tête de bœuf du solution lii dafa ñaw trop. Euh, Assane kon mu ngoog fii lañ ko yéemalee wax sa xalaat leen daje xibaaru ëllëg yi ci kàttanu suñu borom jaajëfal ñu woote ñi nekkoon ci ligne bi dik leen daje yeneen i jetaay yi ci kanam tuuti rubrique sud nutrition buñ ca noppee 22h ak Marie Rosalie Ndiaye jaajëfal bu baax a baax Assane Thioune moom lañu ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jaamu biir gudd fan ak wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen